léegi dafa am benn xam nga dafa am loo gis dafa ubbeeku. Mhm. dafa am caabi. waaw maanaam miftaax. Mhm. mooy liy ubbi. Mhm. suratul Fatiha moom. suratul Fatiha de. ala juróom-ñaari aaya la sëñ sëñ Maodo. man kay maa la wax ne suratul Fatiha lépp waaye képp koo xamante ne yàlla dimbale na nga am jot ba mën ko di ko def junni bis bu jot. dootoo soxla dara ci àdduna doo ñaan kenn doo leb kenn sunu borom da lay joxe xew julli suratul Fatiha waa junni suratul Fatiha bis bu léegi nag sóoratu Fatiha fi ne boo ko doon def junni bis bis bu jot nga def ko junni di nga dem ba say xéwal doo dem doo xam nu mu toll sóoratu Fatiha fi ne boo ko xoolee cent vingt cinq cent vingt quatre araf la léegi nag Fatihatul kitab noonu la baree ay secret bari ko ay tur fi ne am na ci benn boo xamante ne nii ñu ngi naan ko daahiratul ihaatati juróom benn juróom benn juróom-ñetti tur la yoo xamante ne ñoo i yeneen yoo xamante ne nii leeral mel ni arsata makaso hun hal habidu hatta dal zahiyu sey jaga siison ya jaga siison sasa harandijun sasara hijiyun sasara euh, sasara hijiyun ahli sumul hiku muhsidu ak ahamun saqkun xalaxun yesu loolu yooyu yëpp ay turi ay la man fatiha mokkal naa ci junniy tur yoo xamante ne nii benn bokku ceeg sa morom benn bu ci nekk la muy jariñ xam naa ko mais nag la muy jariñ am na lu ma ca xam ko ndax la muy jariñ lépp mënu ma ko ndax dafa bari waaye nag boo ko amee nag sunu borom mën na laa dimbali moo tax turu yàlla yaa ngi fi may may gën a ñaax sama mbokk sëriñ si nañ ko gëstu donte benn rek nga xam buy faj aajo gëstu ko ba xam ko boo ko xamee mën na laa dimbali. waaye waaye waaye junni fatiha yow mi yan moom baax junni fatiha képp ku ko saxal doo leb doo ñaan doo doo sab te sunu borom day faj sa aajo junni fatiha rek képp sax ca rek waa junni fatiha tu kitab moo xam nga def ko guddi wala nga def ko bëccëg junni fatiha tey boo ko am na ci boo xamante nii dinaa ko maye mooy boo jëlee da ngay wàññi par 10. Hmm, di wàccaat di wàccaat léegi boo demaatee ba dimanche jotaat nga tàmbali waat 70. waaw maanaam loolu moom amul lenn lu ko tax a jóg lu dul xaalis. da ngay léegi dimanche nga def 70. 70 Fatiha lenn nga def nga dem 50 dem 40 dem 30. ba dem 20 dem 10. ba dimanche def. Euh, léegi samedi 10 ngay def bu nga defaat.